loolu Sénégal bu ñu ko séddalee téeméeri cër juróom-ñeent fukki ñeeg ay wolof la ñuy wax en tout cas juróom-ñeent fukki ñeeg juróom yëpp dégguñu ay tubaab kon nag mënuñoo fekk réew mi ñu yor ko ci làmmiñ woo xam wii bu ñu tànnee asaka ji sax dégguñu làmmiñ woowu làmmiñu tubaab moom la fab ñage ko seen digganteeg mbooloo mi ba mbooloo mi du xam dara ci naq sa xam yi nga xam ne moom la wax guddeeg bëccëg su ngeen ko déggee ci rajo bi su mënoon na ko ñetti baat ci tubaab bu lakkee ci rajo bi ngeen daal di xeeb seen bopp ne man baa doon laa jànguma daal di tiit defe ne li ñuy wax am na maana te bu ñu ko waxoon ci wolof ngeen sabi yet asalaamaaleykum Sénégal maa ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp di présenté wu Saint-Fane Abdou Karim Gueye euh, activiste membre du mouvement Nitu Dëgg bu ànd sàmm jikko yi alors ñëw tey rek pour waxtaan ak yéen kon ni ñu ko defee chaque vidéo nga xam ne ñu wax ci actualité Sénégal tey ñu wax ci actualité politique gu Sénégal politique gu Sénégal alors nga xam ne yu bëri yu bëri duñ fi nekk sax di wax di waxaat di expliquer di wax li ñu di ko waxaat déedéet waxuñu dara du par xam-xam dañu wax suñu xalaat rek ak suñu yëg-yëg am na ci yu bëri yoo xam day sasut ñi àll parce que un plus 1 égal deux di ñaan yàlla bañ wax luñ luñ ñu xebe ah, dama ñëw pour attirer attention population sénégalaise le peuple sénégalais def sama rôle d' activisme li nga xam ne yàgg naa ko def yaakaar ni man am na lu ma mën a jëriñ sama réew yàgg ko xeex yàgg na mën naa matuma nag mais li gëm moom lay wax ndax peuple sénégal bi yéen a ngi seetlu politiciens yi ni ni ñuy doxalee ak ñun ndax yéen a ngi bàyyi xel jafe-jafe yi ñuy dund ak politiciens yi doxal bi ñu doxal ak ñun ak ñàkk faale bi ñu ñàkk faale ak manque de respect bi ñu politiciens yi nekkee négligence bi nga xam politiciens yi ñu ngi koy def te loolu yàgg na ama ah, je pense que sénégalais xam nañ ko mooy li nga xam ne depuis 1960 ñun ñu ngi koy xeex ñun muy ñu gis ko réew mi yàqu ñu wan ñu yàq politiciens yi yàq Sénégal ñun ñu wan ginnaaw politiciens yëpp. war nañ ginnaaw ñëpp nag ba ni Pastef ñëwee les patriotes soo ko ñëw ñun ni ñu nekkoon di ko xeex ñun ñu gis ni discours boobu la yor ñu topp ko ànd ak moom après moom mu jël lépp dem joxaat ko ñi taxoon ñun ñu taxaw di xeex muy moom li tax mu créer parti politique am moom mu wan ginnaaw li ko taxoon jóg bàyyi ko dem topp politiciens yi nga xamante ni ñun dañoo bàyyoon politiciens yi topp ko moom loolu jur maa ngi koy wax quoi ñëpp bàyyi politiciens yi topp ko moom ndax moom ndróowu la politiciens yi moom mu bàyyi ñëpp dem toppaat politiciens yi ñan ñoo politiciens yi Khalifa Sall 88 la nekkoon ministre de la jeunesse def na 25 ans de député Aïda Mbodj moom moo moo tuddee woon moo tuddee woon euh, Abdoulaye Wade Fantomas ci Senghor ci Abdou Diouf PS après ñëw PDS après léegi Ousmane Sonko moom moo fi ne nii moo gën a jege Ousmane Sonko ci politiciens yi. kan mooy Malick Gakou ñu dem ba léegi ay wàllu ay cest à éternel recommencement ay benn ñaaro tasaaro wàllu. yeewi yeew taxaw sari à dire en réalité li ñu doon xeex di ko jooy bay ray sunu bop yaakaar ne Sénégal day changer au fait dara changer wu ci quoi ñu amone yaakaar ci ben nit bo xamanteni au moins avant muy nek ci dara sax Ousmane Sonko avant muy nek dara Ousmane Sonko Ousmane Sonko changer na idéologie sénégalais ci politique bi nga xamanteni ni ñun amatuñ ci won yaakaar ñëpp dugg ci politique gis ni affaire mi ngi changer quoi donné yi gars ñi commencé gëm ni la politique autrement mën na nek jël sa xaalis diko def ci politique amatul ay sàcc xaalis ñeu créer parti nit ñi di créer ay sièges fu nekk am na sièges Pastef yoo xam ay nit créer région yi région ay xam ay Sénégalais ñoo créé un poste siège bi de bi gëm ko taxawal jël ko dem jox ko Khalifa Sall jox ko PDS ñi jox ko ay jox ko ay Mbodj ko ay ay sénégalais ñun amuñ ci cadre quoi ba paré wa Pastef nañu nak eh yeen nopi len quoi bu ko kenn wax nopi len par force da ngay ni top Ousmane Sonko kenn du ko wax da ngeen nopi par force ñun bu déné bay créer ay ay ay ay ànd sàmm Sonko lan motax parce dañu gis ni ben dom ben doomu Sénégal la bo xamanteni au moins amna sañ-sañu audace ngëm-ngëmu taxaw ne mom bu nekké bu nekké ci pouvoir bi dina xex homosexuality bu nekké ci pouvoir bi ay kess bu nekké deug la ñuy dëkk jiital bu nekké ci pouvoir bi nangam nangam yu bari yoo xamante ni ñun boobu léegi ñu ngi koy jooy te gis ñu waxuma la sax koko gis ñu sax ko ko xawoon a nduróol mais ku ko wax sax politiciens yi ñemewuñu ko sax wax moom mu ñëw wax ko ko engagé wu ci waaw léegi après ñun billaahi dama koy wax man Abdou Karim ñun ñu tuddëgg ñun bu ñu gisoon bu ñu leeroon ni Ousmane Sonko bu demee yi bu demee yeewi day dem foofu jël wagon moom lonk ci locomotive ay Khalifa Sall ak lonk ci locomotive gaay yi di partager ak ñoom li nga xamante ni ñun ñëpp dañ ko jël jëbal ko ko jox ko xañ ko ñee moom mu jël ko di ko partagé ak ñoom loolu suñ ko xamoon ñun kon du man ko défendre du ma ànd ak kenn koo xamante ne man li nga nekk man gëw ma ko man Ousmane Sonko woo mu ci politique ñun Ousmane Sonko ci politique xam na ci lañ la ñu woo révolution révolution rupture totale ñu topp ko si askan waa ngi nii sonn Sénégal yi daj yu nekk ñu gars ñu dem insécurité bi dañuy nit day tëb dugg ci biir këru nit rendi ko ñuy rendi jigéen bu ëmb rendi ko ak doomam ñu dee ñuy fekk nit biir këram nangu alalam ñuy génne ay insécurité fekk 10 litres gasoil essence moo ci nekk wala gaz xam policiers poste di def di jënd pour mën dem def rafle intervention policiers li war yor sécurité Sénégal ñu jël homme politique politique bi ministre de l'intérieur, gérer les élections présidentielles dafa partisan la ci parti politique parti politique bi nek ci pouvoir bi mom moy ñom ñoy def élection yi ñom opposition bi ñu xam ko fi ci électoral boo xam ne baaxul yëpp ngeen xam ko ñi ñi di dee kenn leen lijjantiwu leen ko déggu leen ben homme politique bu juk taxaw wax ci sénégalais yi ni ñuy dee insécurité bi ñi dundé du pouvoir du opposition gisoo ci kenn ñu def ay coupe ñu def ay conférence de presse 72 heures ñu teg la yoo xamante ni ñi di dé comme ay comme ay mala sénégalais yi mujj ngay dañuy gis ku yor ci kërëm yor paaka ñi ut ay pistolet ñuy ut ay arme pour pour yor sen sécurité dëkk bi mel ne ndumbelaan kon kër mala yi Sénégal homme politique yi nekk fi di wax ay waxu liste quoi liste liste liste pour nekk député yoo xamante ni député yooyu ñoom ñoo war a teewal askan wi dee noonu te askan wi dee faale wuñu leen ba pare te bu liste bu baaxulee ñu ne askan wi jug ngeen wàcc ci mbedd bi ngeen xeexal ñu su liste yooyu baaxulee ñu askan wi wàcc leen ci bi ñu xeex quoi ñëw leen ngeen défendre te yow yow nga bëgg ñu défendre la assemblée nationale sa liste sax tegoo fa kuy défendre ko sénégalais yi dina jëriñ sénégalais yi quoi liste yo xam ne ko partager ay gâteau di xol Cheikh Bamba Dièye sax nga xam mo am principe ci sen yeyu bi sax mom xam mom ci ànd bi jikko mom rek mo taxaw ci député yi ci député yi ci nga xam ñoo bokk na si député yi nga xam ñoo ñewoon yéen a ngi ko def trente cinquième position ci li Sénégalais yi di joy volonté populaire ñëpp xam ko 35e position te lo mëna waxal Cheikh Bamba Dièye xam ni au moins amna principe politique quoi lu mu dee dee dee lu amna lu mu gëm touti quoi te terawul sax amna yo xam ñun am ci seet ñom te ba tey taxul taxna na ba tey mi ngi ci bir galu Ousmane Sonko bi quoi galu Khalifa Sall bek galu goûter partage partage du gâteau boobu noonu ñun ngeen bëgg légui man man man li ci gëna grave moy Ousmane Sonko ni mu mujjé nek bukki bi matone Idrissa Seck ni mu mujjé màtte Ousmane Sonko loolu mo grave moy man rek mooy nek président rek 5e président rek président président rek président président rek Ousmane Sonko mo waxu mo loolu man man dama tok mu tok mu ne ma man je veux même pas être président. taxaw di wax ay xam-xam bu taxaw taxaw di wax ngëm-ngëm mais ngëm ngëmadi yàlla bi nekk ci peuple sénégalais bi nekk si man maay fës nekk si ñun moo tax sénégal du mus a dem sénégal dafa mën a jël buum yow ci baatam jox nit ne ko xëccal sénégal day jël buum yow ci baatam jox sëriñam ne ko xëccal sénégal day jël buum yow ci baatam jox homme politique yi ne ku ñëw sax respecté après dina ku ñëw ragal après dina ndax ngeen koy da ngeen koy place quoi teg ko foo xamante ni fi ngeen war wara maqamal ki ngeen war a jox maqaama yëkkati ko du ngeen ko yëkkati da ngeen yëkkati ñoo xamante ni chaque jour ngeen gis miracle bo xamante ni yàlla war na leen ko leen war ni ñun wéeru ci yàlla moo ñuy dimbali quoi wakkilu ci yàlla moo fi nekk te yàlla mooy fal buur mooy folli mais ñàkk gëm yàlla bi si ñun ci jàpp ni ku ku li nga am si nit la war a quoi ba taxaw ne yow doo ko taxaw wax ko dëgg te yow yaa ngi lekk yaa ngi nelaw yow mu leneen yow ki fi nekk nii boo am yalla yalla am yàlla ñak yalla ay yalla ay buur ñu waron dimbalante laayante biir ci yu bare bare yo xam ne mënu ñu ko soppi ci senegal legi Pastef nak ñom nañu Ousmane Sonko day def lu ko neex wax lu ko neex li ñepp am jël ko yëkëti ko xañ ko ñeneen ñi jox ko mu jël ko diko ko ak ñeneen ñi ba paré mu taxaw di wax ak ñun num ko neexé def lu ko neex ba paré ñu nañ ko top par force ah non la mom vous vous trompez quoi loolu doomu arme amul maqaama boobu mako def te kenn du ko wax lolou yonenti sax amuñu ko won waxatuma la Ousmane Sonko après ñu juk non waaji dafa li dafa impulsif ak ni mi ki ak réaction ki ak kërëb kërëb kërëb kërëb kërëb kërëb suñu waxi dem dañuy jëma jaande mu mego suñu waxu tay Ousmane Sonko ay waxu démbam su méngoo ak ay waxu tayam ñu nako say waxu démb jiwaaloon na ak say waxi tay nit boy wax deug bo waxal deug bul xol kum mu kum ku mu wu dëgg alalu yàlla la deug alalu yàlla la man gëm na ni man Bassirou Diomaye Faye amul ko gëna intègre waxuma la passé bi Sénégal man gëm na ni Khadija maykor idi Mahécor ci passé mo nekk ci xolam man loolu la gëm kon benn nit rek moo nekk Pastef après lépp lu mu def noonu la amul kenn ko wax dëgg quoi wala ñii dañuy wax seen wax di yàqu saa bu ñu waxee rek après attaque yi ñëw ku nekk di expliquer ñun suñu yoon nekkul ci ay attaque lépp lu ñu wax nañ ko wax te yàlla tax billahi wallahi dama koy waat musuma def vidéo ba waat su ma gëmoon ni Ousmane Sonko ndekete yeewu bi partage la yeewu bi moom doxalu ci ndekete gars yi toppuñ ci ginnaaw su ma ko xamoon du jàppale du taxaw fenn di défendre yeewu du ma taxaw fenn di ànd ci idéologie yeewu bi su ma xamoon ni Ousmane Sonko day dem delou wat and ak Abdoulaye Wade bi taxone man ma nek activiste man Abdoulaye Wade nga xam limu ñu def ci élection présidentielle 2019 bi nii rek lim ñu def ci élection présidentielle 2019 bi dem ci protocole de Conakry bi su ma xamoon ni gi ma xex Karim Wade ci mbedd bi yëpp manifester ba Mamadou Diop dé Ousmane Sonko day wëlbatiku and ak ñooñu taxaw nek sen avocat tok def conférence de presse 25 minutes muy wax ci défendre ñooñu di sang Khalifa Sall di sang di sang Khalifa Sall di sang ay nit di sang ay ay ay wallu di fexe di sangat ñi nga xamanteni di leen jëm a couvrir nekk seen avocat moom ñu doon woote révolution non ñun ci révolution la ñu woon woowoon ñu ñun woowuñu woon ci politique politicienne ñun woowuñu woon ci ay partage ñun dañu woon ci gëm yàlla ci gëm ni président yàlla moo koy defee que nekk président taxul nga defar dara ñàkk nekk président tax nit nekkul président te defar na dëkkam lu ne te moom commencé woon na réussir loolu Macky Sall gi nekk na président te amul benn njëriñ ci bopp réew mi def fi dara Abdou Diouf nekk na président amul def fi dara nit nekk na fi loo xamante ne nekkoo président sax mais sa réew yëpp topp la nga defar dëkk bi di defar nit ñi man lool laa foofu la ma Ousmane Sonko yóbbu woon te loolu la ma waxoon te loolu la ma wonoon quoi mu wàcc ko ngeen dañ noppi non loolu maa loolu amu fi loolu man loolu xaw ma ko ñun xamuñu ñu ñun nit ñu wax dëgg na alalu yàlla la maay wax peuple Sénégal bi ne leen li mel ni conseil xam nga mooy lan ñu jug ñu taxaw ñu delloo yëfi yàlla ñu teg Sénégal ci loxo yàlla ñu bàyyi ñu ñuy topp ñu topp yàlla ñu gëstu suñu diine ñu wéeru ci yàlla ñu wakkilu ci yàlla xam ne yàlla mooy defar réew ñu xool nit ku am diine jël Sénégal teg ko ci loxo ñu ragal yàlla teg ko ci ñoo xam ne ay nitu diine ay nit yu ragal yàlla nañ dellu ci alquran nañ dellu ci chariatul islamiya chrétiens yi dellu ci seen diine ñu xool ay chrétiens yu gëm yàlla ay jullit lañ teg man li ma gëm mooy nañ teg Sénégal ci ci laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy nañ jël Sénégal ñu jox ko jànkatu alxuraan yi nañ jël Sénégal ñu jox ko ñu jox ko sëriñu daara yi ñi ragal yàlla nañ teg si nañ jël Sénégal ñu jox ko ñi ñu wéeru ci yàlla suñ ko deful dañuy perte suñu noonu tous les politiciens ñoo yem dañ ñuy nax rek dañ nax rek ñoom ñëpp ku nekk da nga jàpp yow rek yaa war a nekk président keneen mënul nekk président ah da ngeen yaakaar ne Khalifa Sall dafa amul amul amul ambition nekk président wala ba léegi amul ambition nekk président wala da ngeen yaakaar Malick Gakou bëggul nekk président ah, ah ok kon peuple Sénégal bi daal ñooy topp ci yéen bu ngeen defee seen erreur ñu wàcc mbedd bi deewal xeex deewal leen ko quatorze jeunes yi deb kéro mars ñun ñu wacc mbedd bi di def ay live di ray suñu bop di man di manifester di baye xalé ndaw ay nit di daw fu nek di ray sen bop di dajale sen xaalis ay maire du jën di envoyer ay wari ay 350 francs pour dajale parti passif yeen jub bo lan ko defulé yalla day yak sen lepp yeen jub mo leen jig bu ngeen jubulee sen lepp day yàqu parce que yeen alalu ñu ngeen dajalé la ta man damay wax limay wax bañuma ci kuma saga saaga la lu ko nit interpréter bal la lu ngeen ci gis baal naa leen mais na fekk may wax man sama conscience moo tax ndax ba ñëpp noppee dama doon wax. Ousmane Sonko wéetee dama taxawoon di wax ba ma gisee dëgg ci côté damaa jug taxaw di wax ñu na man activiste du far ma fëgg sama dënn ne lii ñëw leen wuy si lii dimbal leen ci lii ndax lii amal na jëriñ Sénégal lool bu nekk tut ci yoon wi nekkoon damay taxaw ne nekkatu ca ba ñëpp dégg man nag bokkuma ci ñi yeew bu ñu ci baat leen diri du ko def man bokkuma ci ñuy topp sama sëriñ sax du ko déggal di ko topp di daw waxtuma un homme politique sama sa dafa may wax lu je lu alcorane wax aya wax ko homme wax ko mu mengo ma deg ko mu wax ma lu waxtuma un homme politique top ko Sénégal wor askan wi jël Sénégal karimiste sonkiste waddiste mais lan la où sont les sénégalistes où sont les musulmans les vrais musulmans ana où sont les chrétiens les vrais chrétiens ana ana ñuy jàpp ni loi yi nga xam ni moom la diine yi teg moom mooy defar réew ana ñu gëm ni la loi mooy dëgg ana ñu gëm ni yàlla ku wéeru ci moom perte ana ñu gëm ni képp ku topp leneen lu dul alxuraan perte nga ana ñu gëm ni jullit bu woo lu dul alxuraan perte nga ana ñu ko gëm lan la yéen lan la ndax di ngeen wéet seen borom yéen xool sen bopp xool seen diggante ak seen borom boo leen wéetee ngeen xalaat ci yàlla ko ngeen xam ni alxuraan bii dëgg la lan moo tax ay Ousmane Sonko ay Barthélémy Dias ay Khalifa Sall ay Senghor ak ay Abdou Diouf ak ay Abdoulaye Wade ak ñoom ñëpp kenn respecté wu ci dëgg respecté wu ci kàddu yàlla bi kenn respecté wu ci dëgg di nekk ci lu leen neex wax tey waat ko après yéen ngeen taxaw ànd ak ñoom tàccu leen xeexal leen def ci seen xaalis ba noppi demaat ci jàkka yi di kaba di julli ba pare ñuy woo xale yi pour ñu wàcc mbedd bi deewal leen ko Macky Sall bon Khalifa Sall bon ñoom ñëpp ñu bon ñoom ñëpp a ñi fa jot jot pouvoir bi ñoom ñëpp def lu doy waar ñi jotagul pouvoir bi ñëw mu nek affaire wéqante quoi Ousmane Sonko yeen sen Pastef yeen sen parti bi sen parti bi yagul sen parti bi dafa gu fi 10 ans ngeen bëgg fi changer discours carrément soppi ko ba paré Ousmane Sonko duñu xol beut ak beut di dindi ay waxu dembam quoi ba paré ngeen ne nañ ko nopi loolu doomu aadama mënu ko am ci réew mi fi man de fekk ngi dund inshallah allah sama xalaat dama koy wax sama gis-gis dama koy wax ku mën dégg jël ku mënul dégg ya xam da xolal ma ngi xaar ma ngi ñëwaat pour leral sénégalais ñu xam ku nekk fan lay taxaw liñu gëm dañ koy wax ñun ay nitu dëgg lañ man may wo Sénégalais yi ci jàkkaarloog yeen wax leen politique gu Sénégal dafa échec. politique gu Sénégal dafa échec depuis 1960 ku and ak ñom échec nga ndax ce qui se ressemble s'assemble Sénégalais di dédj di daj du nekk ngeen nekk fi melni comme si de rien n'était peuple bi di sonu faalé faalewul leen do leen genn sax ba def discours sax wax Sénégalais son nañ ci tund bi ñi dund. ci rayante bi ci ay ay insécurité bi agression yi ñi boy yi dañoo xiif nit ñi ñoo xif bay ray nit tim jigéen bu ëmb nga rendiko pour dundee li mu jox la ñëpp di ñëpp ngi door ñu mel ñu nekk ndumbelan affaire mbam ku nekk di wan sa morom mako ko dàq ñi pouvoir bu jël leen Macky Sall jox leen ñu jaay sen ngor ñu top opposition bi parce que dañu am lu ñu yaakaar ci ñom kenn waxul ta yalla tax kenn man ma ci man lay tambalé nak man ma gëna bon ñëpp ma gëna bon dama rouss man dama am gatché te chaque jour ma wax ko lii la ci réew mi ñu nekk ni kenn taxawul kenn ñemewul taxaw jàkkaarloog sénégalais wax Ousmane Sonko nekkoo ci dëgg nekkoo ci dëgg ndax won li lii ñu won li ba ñu andal du ñu ànd ak yow nit ñi di ci mbedd bi kenn kenn sañu ko kenn kenn sañu ko wax c'est malheureux quoi ma ne après ñu dem après def chroniqueur yi taxaw naan ay eh, noo Karim day jaane moom moo saña wax moo sañ lan mooy sañ wax lan lañ sañ a wax lan lañ sañ a wax dëgg alalu yàlla la ku ko waxul yàlla ku waxul dëgg wax la ca des waaye képp koo xam ne boo toogee ci télé di wax jàpp nga ni Macky Sall rek la war a attaqué Macky Sall kese kii aspiré pour yor pouvoir bi moom nga war a ñàkk a baal sax ak ki nga xamante ni ci pouvoir ba pare man li ma mën a nangul Macky Sall sax du ma ko nangul Ousmane Sonko du ma ko nangul Ousmane Sonko Macky Sall moom dafa nëb ba pare yàqu na nga am sa mango mu nëb ba pare yow ki nga xam ne maa yaa ngi koy xayal di ko di ko di ko arrosé mais kooku toppatoo bi nga ko war a toppatoo est ce que war nga ko toppatoo ki nga xam nëb na ba pare mais ñu mel ni ay kii koox na am ay non instant yi élection ñun man suñu yoon nekkul ci ay député suñu yoon nekkul ci yooyu yëpp peuple bi fii li fi am solo mooy assemblée nationale dem ba pare nekk fa te nekkal fa Macky Sall wala nekk fa comme Macky Sall nekk fa bus fa nekk ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ba boobu ba léegi ñoom ñoo fay nekkaat ñoom ñoo fay nekkaat rek ban ngirign lañ amal senegal ñi ñangi joy bobu legi ci peuple di am ay jafé jafé ken xamu xamul la ngeen fi la ngeen fi def yene dal delluwaat ci assemblée nationale bi encore te ken du leen ko wax ken du ko wax te bo waxee ñaan no ki dee xëccu ñun wuñ dara xam luñ soxla moy sénégalais yi éveillé wu conscient su fekkoon dañuy ut dara kon heure yi duñ leen tal ñi ngi si yeneen fekkoon dañuy ut lu ñu dundee kon ñi ngi ci lenen mais soxlawuñ sax justification ndax yalla lañ ci ut te ku ut yalla mom da ngay muñ nangoo muñ quoi ñi nga xam ni xamuñu bu suba ñu comprendre leen ñaan di jégalu nag message bi mais dëgg la te yàlla moo tax ñu ko wax mi ngi gudd sax jërë ngeen jëf wasalaatu wasalaam rasulullah ñi ngi ñëwaat semaine prochaine incha allahu rabbi mbokki Sénégal ak li ko wër yéen ñi am ndax rectis ci lépp lu jëm ci seen wàllum yaram ah mbokk yi solution bi ñëw na ki jóg ngir jàppale leen dimbali leen ci seen wàllum kaaraange seen jafe-jafe yaram ak lu mën di dool ah mbokk yi solution bi mooy Serigne Babacar Ndiaye Serigne Babacar Ndiaye dem gëstu ji xam-xam ba am ko Serigne Babacar Ndiaye jàng xam-xam ba mokkal ko ni ma nag fal dammel ma ni ko amu ah, ni ma li faratas yàlla sunos Mouhamed rekk laay dox ay garab yu baax la ñu yor xam ni da nga am jafe-jafe am doom moo xam ci góor ki la nekk wala ci ku jigéen ki gaaw leen gaaw ngeen dem seeti Serigne Babacar Ndiaye mu dindi leen ko ngeen gën am ci satisfaction am doom ci li mu gën a gaaw moo xam ndax ay raba la ko def muy ci ku jigéen ki mbaa ci ku góor ki lépp lu la mën a dal moo xam faiblesse sexuelle impuissance sexuelle boo ko seetee yow miy góor mu fajal la ko ci jooni jooni nga yëgaat sa bopp bu baax ñibbi mel ne fitt gu mbër sànni kër gi neex soxna yi kontaan nga mi nga xam ne da ngaa am jabet gaawal gaaw nga da koy dindi ba mu set wàcc nga tàggook moom yow mi am hémorroïde moo xam externe wala internet bu mu ci mën di doon Serigne Babacar Ndiaye da koy dind ba mu set wecc macha allah ba ci ndoxum siti Serigne Babacar Ndiaye ni ma fal dammel yi ma cee kenn ci yow mi nga xam ni sa xol day foo toll muy tàng ngay am lu la naqari te xamoo lu la ko def boo seetee Serigne Babacar Ndiaye tàggoog moom yow mi nga xam ni nag sa loxo dafa bënn loo yor mu ni furaas daal di xëddeen doo xam fu mu jaar gaawal gaaw nga dem seeti Serigne Babacar Ndiaye alxuraan am na ci ñaan gu baax yow mi mënta am dara tëju buntu boo fëgg mu dëgër seeti Serigne Babacar Ndiaye mu tijjil la bunt yow mi bëgg bayre bëgg siiw moo xam mbër nga war a artiste seetil Serigne Babacar Ndiaye mu wesaare la mu ni ma am naa bayre mbooloo am naa bayre njaay kon commerçant yi daw leen mi bëgg ay kayit moo xam nga ne ci réew mi bëgg a dem ci bitim réew mbaa nga ne ci bitim réew bëgg ay kayit ñibbisi seetil Serigne Babacar Ndiaye mu dimbali la ci yow mi bëgganteeg sa soxla dëkk ci ay jafe-jafe ay problème xuloo guddi xulee bëccëg demal seet Serigne Babacar Ndiaye lan mu ni ma seet moom yéemu ma cee kenn ci réew mi du la wax baal ba suba du la wax dara damay jàkkaarloog yow wax la li ne ci yow te doo jox tur weddi gis bokku ci Serigne Babacar Ndiaye mi ñépp a ko soxla yow mi ko soxla nag gaawal gaaw nga woo ci numéro téléphone bii di 77 453 yow wax la li ne ci yow te doo jox tur weddi gis bokku ci Serigne Babacar Ndiaye mi ñépp a ko soxla yow mi ko soxla nag gaawal gaaw nga woo ci numéro téléphone bii di 77 453 52 94 am na itam tàndarma yu baax yoo xam ne day neexal say ay tàndarma yu ubbi wërsëg ak Serigne Babacar Ndiaye alxuraan njàq rek tiis ci lu jëm ci wàllum yaram jeex na Sénégal Serigne Babacar Ndiaye alxuraan daal mooy solution bi daw naa de jaageen coof